leen sargal waaye tamit di leen jaajëfal yéen ñi safoo di ñu seetaan ci Equivox TV mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu koy dooree rek ñekk yi nga xam ne nag ñoo war a xeex feebaru coronavirus ginnaaw ba mu yegsee Sénégal bañ leen sax jot a jël seen dose ki nga xam ne nag moo di njiitum réew mi di président Macky Sall dina jël wàllam néegi ni tey rek fële ca palais présidentiel. coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñi nekk nag député ca pencum ndaw réew mi dinañ amal rek ab ndaje ci arjuma bi nag ni suba ci 11h ngir waxtaanee rek li nga xam ne mooy li jëm ci wàllum laali malaanu kiiraayu député bi de Ousmane Sonko loolu nag moo génn rek ca conférence ba nga xam ne rek amaloon nañ ko nege ni démb rek foofu ca pencum ndawu réew ñi nga xam ne nag ñoo di militant Pastef yi rek amal nañ ñoom itam ab réunion d'urgence nege ni démb ca seen siège boobu nekk ca VDN bi tago président nag di Bassirou Diomaye Faye di président di mouvement des cadres bu PASTEF ci noonu nag li waral boobu leen daje rek mooy waajal militant yi ci bésum aljuma bi nga xam ne rek dañ ca war a jàmmaarloo rek ak askan wi ba tey rek ñuy wax ci ñekk yooyu nga xam ne ñoo war a xeex mbasuma fe mbasuma coronavirus ci noonu daal dinañ ubbi rek benn plateforme boo xam ne rek képp koo xam ne rek bëgg ngaa ñàkku ci yooyu la ñàkk mën nga inscrire ci boobule plateforme ñu daal di la jox rendez-vous rek nga dem daal di ñàkku ki xam ne li ni mel nag moo di médecin chef de la région de Dakar Ndeye Maguette Ndiaye. ñiy xeex wàllum sinébar bi fii ci Sénégal di subdivision des douanes de Kaolack daal nañ xam ne rek ci diggante mercredi ak dimanche rek daldi dinañ. jàpp lu tolloog euh, benn tonnu yamba ci noonu nag fañ ko jàppee rek di localité yi di jagle Latmeng ak fi nga xam ne rek mooy Santhiou Mor Mbaye ñu daal di dem ak yéen Mbour la fa xew nag di du doy waar ginnaaw nag ay ñaari xale yu góor ba ñëwee rek ca hôtel Lagon 2 ba nekk Mbour di xam leen rek kenn ki doomi Macky Sall la keneen ki ne doomu Idrissa Seck la yooyu xale yu góor nag li tax ñu def li ni mel rek dañoo bëggoon a fanaan ci suite présidentielle ba nga xam ne rek moo nekk ca hôtel Lagon 2 bu Mbour ci noonu nag dañ fa daal li bàyyi rek facture boo xam ne mi ngi toll ak 1 million ba ki nga xam ne moo di président Macky Sall moo mujjee faye boobu lay facture jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi doon teewlu xibaar yi ci Equivox TV ñu ngi leen di jox dig daje ëllëg incha